sala allahu wasallama alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain amma baadu fa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi del siwaat di ànd ak yéen jataay bii di jataayu alquran alkarim muy ala maidati alquran ci bisu tey bii nga xam ne yéen a ngi yendoo woor kooru fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ramadan di ñaan sa borom tabaraka wa taala mu nangul nu te nangul leen seen koor nangul nu te nangul leen seeni naafila nangul nu te nangul leen lépp loo xam ne def ngeen ci aw yiw ci weer wi rawatina guddi gi nga xam ne léegi ñu tàmbali nag di ko dakk ci fan yi di ñëw ci kanam wala ci guddi yi di ñëw ba tey rek taxaw seetlu yi nga xam ne noo ngi koy am ci alquranul karim ci digganteem ak ramadan buñ delsiwaatee ci laay suratul baqara chahru ramadan alladi unzila fihi alquranu hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqaan boo ko toppee ba laay ja te jaaroon nan ca da gis ne laay ja ca tegu juste rek mooy wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata ddaai ida daan فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون kon laay jooju dafa jëm ci ñaan ñaan jaam bi ku ñàkk la jaam bi ku tële la jaam bi ku réer la waaye boroomam day ku mën la boroomam boroom kattan la boroomam ku tabe la boroomam ku xam la la baax ci jaamam lii moo tax jaam bi fum mu toll fu nekk day yëg ak aajowoo goo xam ne aajowoo na ko la nekk fa boroomam képp koo xam ne danga doonub jaam nag te sa boroom li nga soxla lépp mu am ko la war a dox sa digganteeg moom rek mooy foo toll ku nekk di ko ñaan rawatina bu fekkee ne sa sang boobu yi daf laa wax ne ñaan gi ci boppam ak jaamu la nga xam ñaan gi ci boppam jaamu yàlla la danga ci ciy am tuyaaba kon loolu war na laa soññ ci ñaan mu wëlbatiku yor melokaanu tabe tabe goo xam ne àgg na ci ku ko ñaanul mu mere la loolu nag néew na ak tabe di ca àgg nit ki mën naa tabe ba ku ko laaj mu jox la waaye ku ko laajut it nag du ca wax dara waaye nag tabuk sunu borom tabaraka wa dafa àgg ci ku ko ñaanul mu mere la kon laay jooju buñ ko xoolee daf ñuy jàngal ne bi mu waxee ci weeru koor wi nga xam ne ci lañ wàcce alxuraan ak njub gi nga xam ne moom la alxuraan indi ak weeru koor di ca tàggatee daf ci teg rek ne su fekkee ne sama jaam yi dañ ma lay laaj wa ida saalaka ibaadi anni sama jaam yi suñ la dee laaj yow sama yonant bi anni lu aju ci man su fekkee ne dañ laa laaj seen boroom fu mu leen toll ci wàllu sori ak jege na leen xamal ne leen ku leen jege laa wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun man day ku leen jege la suñ boroom tabaraka wa taala lu gën a bari ci alquran saa bu jëfandikoo ne yasalunaka danañu la laaj nangam boroom bi danaan xul wax leen ne nangam daañu la laaj nangam nee leen nangam bi mu ñëwee fii nag wa ida saalaka ibaadi anni néewul qul waaye daf na rek fa inni qaribun kon moom ci boppam moo tontul boppam jëlul tontu la sako ab yonentam ne ko jox leen ko waaye dafa tontu moom ci boppam loolu nag am na lu muy tegtale day tegtale am solo goo xam ne ñaan sa borom tabaraka wa taala am na ko solo waaye day tegtale ne jege gim jege ab jaamam jege gi àgg na ci diggante bi jarul mu fi doxale kenn laaj ba sax du ko jox kenn mu di ko tontu naan ko yàlla ku jege la waaye da koy wax ne man sama bopp ku jege la loolu daf lay sane ñaan gi sa boroom tabaraka wa taala rekk ngay ñaan dëgg la sa boroom mën naa am ay yonentam yum fonk ay malaakaam yom fonk ñu kawe ay daraja ay nit ñu baax ñoo xam ne awliyaullahi la lañuy doon yu baax suñ borom fonk leen lool waaye ñoo ñëpp ak fonk gi mu leen di fonk lépp ak seen martaba la muy kawe lépp fa moom lu aju ci nangu ay ñaan nag boolewu leen ca loola moo tax yow jaam bi ak loo jàppe jàppe sa bopp ku suufe nag saa boo demee nag ba yëkkati say loxo jëmale ko ci sa boroom nag tabaraka wa taala bu amatik meneen mbindeef muy dox sa digganteeg moom saa boo ko yëkkatee rek fa inni qaribun jana ñëw fa inni qaribun saa boo xamee ne sama jaam yi laaj nañ leen ndax man dama leen a sori wala dama leen a jege fa inni qaribun nañu xam ne man ku leen jege laa jegeeg sunu borom tabaraka wa ab jaamam nag xawee su ko mën a melal ndax mënees na naan diw jege na ko ba su déeyee sax mu di ko dégg wala su sëqatee mu dégg ko su tisoolee mu dégg ko ndax da koo jege waaye nag jege goo xam ne borom bi tabaraka wa day xam lay jax-jaxal ci sa biirub xol nga di ko xalaat te génnee goo ko ci saw làmmiñ jëfe goo ko ci say cër mu xam loola ba ne wa naalamu ma ma tuwaswisu bihi nafs nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min xablil warid la muy xalaat borom bi nee na noo koy xam buumu xolam gi nga xam ne bu daggoon mu wàccub liggéey borom bi tabaraka wa taala moo ko gën a jege jaamam bi kon rek waay jaamu yàlla bi saa boo yëkkatee say loxo jëmale ko ci sa boroom di ñaan lépp luy mbindeef won ko gannaaw ba noppi sa diggante ak sa boroom audience la boo xam ne kenn waru koo fekke yoonu keneen nekku ca bul ne ko maa ngi lay ñaan ngir diw sàngam dafa am daraja fi yow mu bëgg koo jaaree ci moom déedéet kenn du kerkeraanu kenn ci ñaan fa inni qarib bul ne ko maa ngi lay ñaan ci barkeb diw bul ne ko maa ngi lay ñaan ci darajey diw bul ne ko maa ngi yaakaar diw li ngay ñaan na def direct rek ci ki nga xam ne moo la bind bind diw jox diw daraja su fekkee borom daraja la jox ko aw su fekkee boromu tur la moom moom yi nga xam ne moo maye loolee moo may diw lam ko mooy ba tax diw nekk diw booy tàllal say loxo na ko tàllal say loxo moom ci boppam kon fa indi qarib mu teg ci lu am solo nag te lépp ma am solo tabaraka wa taala nee na ujibu daawata daay ku ma ñaan dama lay nangul ku ma ñaan ma nangul la loolu ab dig bu jógee ci sa borom tabaraka wa taala waaye mu teg ci nag li ñuy wax ida ida nag ab charte la ida ab charte la maanaam ku ma ñaan danaa la may ci kaw charte charte ba mooy lan mooy ida daan su fekkee man la ñaan bari na kat kuy kuñ kuñi yëngu tuñ tuñi ci dara mel ne yàlla lay ñaan fekk leneen lay ñaan bariyaa ne ku yor kurusam di werd tur wam yor ne da koy werd di ca ay soxlaam turu jinne la wala turu seytaane la wala aw tur la woo xam ne moom mi koy werd sax xamul turu lu mu doon xamul turu lu mu doon yaa jëla xóot kenn xamul turu lu mu doon ci àdduna kon ida daan ku ma ñaan ma may la su fekkee ne man nga ñaan kon suñ borom tabaraka wa taala ngay ñaan kon yaa allah yàlla nga ñu defal nangam ya arrazaq noo ngi lay ñaan wërsëg yaa salaam noo ngi lay ñaan jàmm kon turi borom bi tabaraka wa taala yi nga xam ne ci nga ko war a ñaane na fekk muy turi yi ñu xam mu leer nañ sax ci alquranul karim ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa ku ko jaarewul foofa nag yaa ngi ci njuumte loo xam ne boo tuut sa ñaan waxuma ne di su ko nangu sax yëmut ca loola waaye bàkkaar mën nga ko caa jële walla nga jóge sax faf tàbbi nag ci shirk yàlla na nu sun borom tabaraka wa taala musal ci loolu te musal ci bépp jaam kon wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai kon loolu yi moo nekkoon jubluwaayu laaya ji jote gi nga xam ne jote na ko koor gi itam mooy laayay chahru ramadan dafa àgg rek mu teg ci loolu nga xam ne kon weer wi ndekete weeru ñaan la waaye ndekete weeru wéetal yàlla la ci ñaan ba diisul ñaan keneen di ko booleeg sunu borom tabaraka wa taala diisul tudd turu keneen di ko booleeg turu sunu borom tabaraka wa taala diisul yëkkati ay loxo jëme ko ci sunu borom tabaraka wa di ko yëkkati waale di ko jëmale ci mbindeef kon mel na ne waxtu waa ngay jeex tàggoo ba daal di dellusiwaat ba nu dajewaat ak yéen ëllëg ci waxtu wi jaare ko fi ñu ko jaare woon di ñaan sun borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq joojee wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu